mbokk yi dañ nag ak jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay déclaration de politique générale bi premier ministre Amadou Ba amaloon démb ca pencum ndaw réew ma moom la ñu xëyee ubbil le quotidien le béaba don face à face la wax le témoin tuddee ko les temps forts d'une DPG li quotidien nee ko Amadou Ba réussit son grand oral Amadou Ba C4 au-dessus de la mêlée moo nekk ci xët bu njëkk alerte quotidien les échos ñëw ci motion bi waa Yewwi Askan Wi déposé Walf dellu ci troisième candidature bi la troisième candidature en procès ñu wax ci gestion des fonds du covid 19 l'observateur dañu ñëwal ci détails yi le quotidien titre ko le virus dans la gestion ñu dellu ci assemblée le quotidien teral di ñu xamal ni dossier Petrosen bi nekkoon na ci débat yu ñu sulli ci assemblée nationale ñu wax ci tàggat yaram le Maroc va détrôner le Sénégal moom nekk ci xët bu njëkk wi sport stade ñëw ci quart de finale Argentine Croatie Messi et Modric deux ballons d'or mission ñu jeexalee ko lamb suñu lamb wax ci face à face Balla Gaye Boy Niang 2 tuddee ko électrique face à face le lion et Thiapathioly déborde d'envie de se corriger ñu yendoog jàmm